c'est l'entourage qui n'a pas été man Massa laa bëggoon poser question. bu waaw euh, dama bëggoon xam boo comme que prison nga nekkoon est-ce que la moo la fa dugal kañ nga génn et puis gars yi dañu doon wax beaucoup de euh, dañ la foofu luñ la dóor wala. waaw no xam nga nag prison bi mu wax dëgg yàlla metti na. mais man kenn dóoru ma fa. kenn dóoru la. parce nit da ngay wax dëgg. dëgg la man kenn dóoru mhm. mais. gis naa fa ñoo xam vraiment prison bi métti na tey jii ku ci mel ni moom Mamadou sekk ñu koy wax Ousmane sekk yàgg na fa trop yàgg na fa trop. mais mais mais nan nga ko dundee prison bi laa wax yow. ah parce que prison bi dundee naa ko ci ngëm yàlla dundee naa ko it xam ne prison moom kenn du ko yéene kenn. gisoo fa kenn ñu ñu ko ñu bundoxataal comme témoignage. ah mais du ñàkk du ñàkk am na fa. Mm-hmm. am na fa. dafay am loo xamante ni loolu même suñ ko waxul sax tey da ngay gis ñoo xamante ni ndeysaan bu nu nekkee ci prison bi dal ñenn ñi dañuy toj seen bopp yi ñenn ñi dañ leen dóor ba nga xam ne. kenn moo leen di dóor. garde yi. garde yi ñooy dóor prisonniers ñoo leen di dóor. lu tax parce que nit boo ko nee toogal fii ak lu mu mën a demee nag nit boo ko nee toogal fii dëgg la ñoom ñoo yor prison yi mais nit bu nekkee ci yow dafa am nooy nekkee ak moom. di wax moom ci dal. ak lépp lu mën ak lu mën a am nag. Mhm. parce que nit kii maanaam nit nit la rek. est-ce que bon est-ce que le fait que ngeen nekk ay. Euh, militant Pastef ñoo xam ne yéen ay militant Pastef Pastef ngeen ci biir prison bi est-ce que amoon na différenciation de traitement par rapport ak ñeneen ñi waaw ah ñun bi ñu bi xamee ni ñu ñooy militant Pastef yi. nan lañ leen doon traité ñoo xamante ni bokkul ak ñeneen ñi ñu leen traité. pare yenn saa yi bu ñu fekkee ñu toog sax. Mhm. wala ñu toog booloo. Mhm. dajaloo nii. Mhm. dañuy tas ndaje ga parce que dañuy defe dañuy am lu ñuy bëgg def ci kaso bi. loo leen di waxtaanee. ñuy waxtaanee di ko ngun-nguni ci suuf. di ko ngun ñun fekk na ma ma toog man ñu ne ñoom Omar Diagne booba euh, Omar Diagne. ñu ngi ñu ngi professeur Omar Diagne maa ngi koy nuyu au xam nga ni doof. Mortala Gueye suma xarit maa ngi koy nuyu bu baax.